non Boy Niang Boy Niang Ok, amis téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve dans votre émission Vox tey nag mbokk yi ñu ngi monument de la renaissance li ñu fi indi moom mooy Albourakh Events Baye Ndiaye mi tëgg combat bu mag bi jëm ci diggante Boy ñaa 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers alors face to face bi fii lay nekk dernier face to face d'ailleurs bi ñu war a def avant ñoo jëm ci seeni combat bu mag gis ngeen installation yi des na tuuti lépp loo leen xamante ne mbokk yi ba ngeen koo gis ba ngeen koo seetaan ci face to face bi dara bañ leen rëcc fii ngeen koy amee ci seen chaîne Equivox TV topp leen ma ma xaw a sob xool gars yi dernier réglage yi nan lañ koy defee topp ma. ak eh, tuuti rek. Ah. jar a tàkk. événement événement bu ndaw ki ko organisé famille bi mu bokk du organisé lu ndaw baay xam nga lu mu dugg rek day dem incha day ñaan dugg si bisimilah rahmaani génn si alhamdulilah rabbil alamin tey nga gis. ñu bàyyi ko euh, mu nuyoog mbokk téléspectateur salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam sama xarit maa ngi sant yàlla di julli yéen bi di gërëm ñëpp rek. Ah, waaw ji mag yi nga xamante ne Baye tëgg na ko euh, andi ceeg waa Albourakh Events nan nga ko gisee ci diggante booy Niang ak Lac de Guiers. waaw làmb ju rëy rëy la xam nga dafa am loo xamante ni nit ñëpp dañ koo bëggoon amateur yeeg kuy dund làmb rek bëgg nga ko surtout alima jigéen bi bon su ko tëggee di bégal senegal lu rëy rëy lay doon ndax ki tëgg làmb ji moom la ñu tuddee maamam. maamam moo daan def saa yu jotee mu jëlee jóge min bas sëf ay gëléem yu bëri boole kooki nag indi jox ko sëñ Babacar ba sëriñ Babacar benn gàmmu ñëw mu gis ful bi bari mu laaj te lii lu mu doon ñu ne ne ko alima jigéen muy ñëw mooy ñëw mu ne déedéet alima ji bu leen waxati alima jigéen alima góor kooku la turandoom di tëgg làmb ju rëy jii bon diggante géejawaay ak Pikine diggante Boy Niang ak Lac de Guiers du yomb non en tant que en amateur làmb en tant que woykatu làmb mais amateur u làmb nan nga mën a décortiquer làmb ji techniquement. waa xam nga làmb ji làmb ju doy waar la. parce que képp ku la ni mën naa ko set setal setal setal setal ba joxe la favori wala diw moo man wala diw moo man dalay nax. làmb reenu ñàmbi la rek kenn xamul fu muy damee man loolu laa gis. bu fekkoon ne xam nañu wala suivre nañu Boy Niang. boo duggee rek xam nañu Boy ñaa ne pas attentif. c'est que dafay mesurer distance bi nga xam ne moom la war a bëri ak adversaire am mais koo xam ne doo ko dàq muy daw saa yoo tax mun na def écart pour xool distance bi nga xam ne ci la ngeen war a bëri mais ku xool digganteem ak euh, Sa Thiès xam ne du mbër moo xam ne day ñëw di daw wala muy def dara waaw moom dafa nekk mbër boo xam ne day mesurer distance bi nga xam ne ci ngeen war a bëri combat boobu nag nii lay wax naan combat boo xam ne dañuy dañuy dañuy xaar wala yu mel noonu ñooñu dañoo xamul rek dañoo xam Lac de Guiers ak déclaration yu def ku xam Boy Niang ak déclaration yu def nga xam ne combat boobu waxuma ne day gaaw gaaw boobu waxuma ne day yéex mais combat la boo xam ne ñëpp dañuy seetaan bëre seetaan xeex waaw ñu gis ni waa Guédiawaye dañoo mobilisé wu juboo am seen biir ñu mobilisé wu Balla Gaye di ànd ak moom di contact ñëpp naan da ngeen gaaw daan ki nga xamante ne mooy la la jageer dem ci Balla Gaye waaw non ñun problème mu Balla Gaye tiitalu leen no problème mu Balla Gaye ñun waxuñu ko parce que xas jëm ca pay xas jóge faa ko gën ñun duñu nekk di toog di wax euh, Balla Gaye te bëre wuñu ak Lac de Guiers Lac de Guiers la ñuy bëreel Lac de la man du ma wax sax booy Niang aussi du wax ci affaire u Balla Gaye parce que bëreewul ak Balla Gaye moom demul daal def ay choix ci ay adversaire am saa yu bëree ba pare ki muy war a bëreel day tombeek mu war a nekk ku nekk géejaway mais bëri naag ay ñoom dolf bëri naag ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu géejaway kon nag moom fixé wul ci Balla Gaye te mun na bëre ba pare sax te du bëreeg Balla Gaye su waree bëreeg Balla Gaye nag dina bëreeg Balla Gaye mais du caaganu par exemple da nga ñëw toog ni su ma daanee diw ci Balla Gaye laa jëm Balla Gaye du koo xam ne ne da ngay jóge fële rek ñëw da ngay bëreeg moom moom nag. challenge la xale la bu sañoon képp koo xam ni am nga tiit war na mën a bëreeg yow mais ça ne veut pas dire que ni Balla Gaye la war a bëreel su su paree ci la. mbokk yi ñu ngi taxaw ak euh, Issa Ndiaye euh, mu communication wa événement bi ñu bëggoon koo laajte rek gannaaw bu ko nuyoo euh, événement bi foo leen ci toll ci wàllum communication ak lan moo ci des ci wàllum réglage. alors bon réglage yi xam nga combat moom boo koy préparé pendant des mois fi mu nekk ni on est à quelques encablures de l'événement donc soreetul parce que le 13 juillet la diggante booy Niang ak Lac de Guiers 2. alors tey jii nii am nañu euh, benn face à face fii monument de la renaissance événement bi ciy topp mooy euh, une soirée de gala le 6 juillet dans un hôtel de la place bu loolu weesoo nag euh, dañuy dem rek ci open press yi mbër bu ne am open press am et puis après ñu dal di dem directement vers le combat bon fi mu nekk lépp yemb na combat bi dañuy fàttali ne pay per view lay nekk. alors pay-per-view bi euh, bu fekkente ne da nga nekk au Sénégal mm. mun nga dem ci EDK yi nga jënd fa code mm. wala nga jaar par Orange Money mm. donc ñaari possibilité yooyu ñoo am au niveau local même Gambie sax dañ fay jaay code yi ah, am na code yoo xam ne ñu ngi déjà en Gambie euh, ah, code yi code yi nii la mel ah, boo ko gisee nii la mel sous forme carte la carte comme carte à gratter mel ni kuy jënd crédit ah da ngay xoos ci ginnaaw rek boo xoolee c'est les code yu ñu utilisé woon combat Balla Gaye Modou Lo mais loolu dafay tekki rek ne euh, lamb lii bokk na ci li koy doxal lu koy dimbali donc euh, je disais que boo nekkee Sénégal nga bugg a jaar internet mun nga dem EDK jënd code wala nga jaar Orange Money bu bu la neexee tamit nga dem TNT mhm. wut sa TNT jël sa abonnement code bi 2000 francs la par internet te TNT 2500 francs boo nekkee diaspora nag sa carte bancaire rek ngay jël dem seen affiche point com nga def sa paiement après dal di dal di dal di dal di dem donc noonu la tëddee quoi. Hmm. alors euh, lan nga doon lan ngay wax ñi nga xamante ne bii passé doon nañu wax ni effectivement ba tey connexion yi euh, problème problème bi mooy jàllul bu baax. ci lan la xam nga nit ñi dañu dafa am loo xam ne il faut nit ñi comprendre ko hmm. mooy pour nga mun a seetaan combat bi am code rek taxul. da ngay am code ba pare am connexion. xam nga déjà xam nga déjà da ngay yor benn euh, application bu ndaw. nga koy télécharger sax mu bañ. parce que sa connexion baaxul. wala ngay wax ak nit WhatsApp mu dagg parce que sa connexion baaxul. donc il faut d'abord nga am connexion bu baax. ba pare jël sa code nag pour mën a seetaan combat bi. loolu benn yëf la deuxièmement waa Orange. suñu ay partenaire lañ ci événement bi depuis lors pay per view saa yu amee techniquement dañuy intervenir pour yokk capacité réseau bi pour permettre nit ñi ñu mën a am connexion bu doy mais ne nit ñu jàpp ne am code benn yëf la am connexion bu baax tam daf ci bokk. waaw ñu lay gërëm di la sant. merci beaucoup. Baye naka coono yi. ñu ngi sant alhamdulilah. Baye lan moo des ci euh, ci affaire yi. waaw xaar ñaari mbëri rek ñu def seen face to face. Hmm. xaar le trade incha ñu dem stade ba bëree ko combat bu neex. maa ngi doon waxtaan sànq ak euh, Issa xam nañ ne lépp euh, combat bi pay per view la lan ngay wax sénégalais yi nga xam te ne ñu ngi lay seetaan. waaw ñu dem teel a jëli seen code rek. Mhm. teel ko préparé xaar ko. Mhm. xam ni combat léegi loolu laaj. Mhm. pay laaj. ñu dem ko teel ko suivre ci pay per view incha allah. pay euh, ñu gis beneen beneen beneen mbir mooy dana jaar aussi fi nga xamante ne moom mooy. Tente. Tente si si dina jaar Tente. am nañu contrat ak Tente dina fa jaar pour ñu nekk Sénégal. mu gën a yomb ci ñoom TNT la ñuy jaar ñu nekk à l'étranger ñu jaar PPV quoi. ñi nga xamante ne xam na euh, nee nañu Boy Niang bu fekkee yàlla may na ko ndam ci sa waaji la jëm Balla Gaye loo ci wax. nañu xaar bu la treize rek incha allah. <laughs> Ah, alors. topp ma